gannaaw mbas mi lakkalee doomi aadama yi ci biir dëkk bi booda yi ñu daal di leen tëj est ce que booda yi ñi nga xamante ne ñu ngi si daan sukkandeku ñu ngi si am jafe-jafe. am nañ coono liggéeykat yi est ce que gars yi ñu ngi liggéey ñu ngi am comme nuñ daan amee. réew mi amul kenn ku denc dara. jigéen ñi nga xam ne ni ñu ngi doon dund ci booda bi di demalante ci ñaari dëkk yi di senegal ak Gambie rawatina Gambie at bu nekk luuma day am. luuma fii nga xam ne nii moom mooy Farafeñe ak luuma Kër Paate est ji luuma yu amul sonal na jigéen ñi. te ñun ci luuma bi lañ daan jaayee di am liñ daan am. waaye jaaykat yi nga xam ne nii ñoom ñoo nekk si booda bi di yëngatu si wàllu jënd ak jaay gi jamono juñ toll nii lan leen fa nekkee. doo fi gis fii boo fi àndoon suba ba ngoon mën nga am ñaari weer doo jaay benn gambien. mbas mi nag dem na ba nga xam ne nii. nit ñi fi mu toll nii sax gëmatuñ ko waaye li gën a raw loxo mooy ñu nekk ci booda bi lan moo leen nekk di sonal. xiif. dépasse da lañ bëgg dépasse na mu ngi bëgg a të.